amiin amiin mais seen mais ci loolu waaye xanaa xanaa tooy te rek taw amiin amiin salaamaaleykum maa ngi leen di ko ñu ngi lay ziar. mais tey nag da ngeen ñëw sama kër de. waaw waaw waaw. ah oui Lawisam Barbe mooy loolu shop sama kër la. kër Jibi Ndiaye moom frère ah tey ma ko waral sa teewaay fii nii waaw li ma la ko waxee léegi sama kër laa ñëw lii suma suma suma yëf la suma entreprise la donc nag ku ne am na ne Jibi Ndiaye suñu diggante suma frère la et ki suma lepp la lolo waral tay ñu xoos tay ci taw bi ñëw nu mëna démé dañu demee ñëw ndax li suñu yëf la waaw. relation ak Jibi c'est mon frère suma frère la. waaw du dugg ci dara te woowu moo waxtaan ci ak man man it même chose waaw ci gàttal daal xam nga moom boo ne vous êtes des rek mooy tëj na lépp donc loolu moo waral sama teewaay yow xam nga ne sax mooy loolu dañuy daje ci mel ni bariwul donc moom bu déplacé rek c'est parce que donc personne bi jaral na ko dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg. le 28 gars yi bëri coow lu bëri. waaw mais le 28 mooy la le 28 rek non la. loo xamante ne sénégalais yi ñoo ko moom àdduna ñoo ko moom ndax Dakar Arena moom boo fa làngee moom c'est parce que da nga woo àdduna yëpp donc à chaque fois di fàttali gars yi rek di leen wax ne date bu boo xamante ne la ah ñu ngi koy waajal ci côté yëpp nag ñu ngi koy waajal euh, événement spectacle ak lu mu laaj rek ak loo foog ak loo leen foogul ñu ngi ciy liggéey ak staff bi ak. Euh, képp koo xamante ne rek tey ji sa xel màcc na ci spectacle ak lépp lu lu ma sénégalais yi di xaar incha allahu rabbi ñu ngi ciy liggéey bu baax a baax a baax a baax. mais moom mooy gars yi nee nañ dafa sori euh, arena. yow baax na date bi baax na. arena dafa sori dafa sori waaw non non soriwul parce que terre bi xam nga. dinañ teg lépp luy lépp népp lu mu waree ci ci côté côté transport dinañ yombal gars yi parce que terre bi day dem donc. ak ak ak tamit aussi bon defe naa Dakar dem dikk ak yooyu yëpp dañuy dañuy peloton la ñuy def dox dem waaw xam nga boobu moom jege na leen ñoom peloton la ñuy def département de Rufisque ak bari Bargny moom côté boobu daf leen jege mais bu dee Ndakaaru ñi war a ñëw ak fépp waaye li mën a jóge ah ci Sénégal gars yi ñu ngi ciy liggéey bu baax a baax a baax a baax a baax dinañ ci liggéey incha allah ak waa dakaar dem dikk ba nga xamante ne dañuy yombal dem bi aussi ak terre bi aussi donc boo ñëwee ba foofu teer bi euh, dakaar dem dikk bis yi ñoo lay jël yóbbu la ba ci événement bi ñooy ñëwaat tamit yóbbu la ba ca teer ba nga ñëw dakaar boo ñëgsee ba dakaar tamit bus moo lay yóbbu ba sa gox incha allahu rabbi loolu ñu ngi ciy liggéey. sur le plan euh, sécurité. day mat sax incha allah ah mais tamit doo organiser bés bu mel noonu te doo am sécurité donc dañ ciy dañ ciy liggéey bu baax a baax a baax a baax loolu moom bu leen wari waaw. beneen bi mooy euh, da génn génne affiche keneen génne affiche yow lan nga siy wax. kan moo génn affiche. ah. yaa ngi njëkk a génne affiche am nañu. décembre ñëpp la. ñëpp mën nañu joué. waaw ñun Dakar Arena la ñu wax le 28. incha allah. suñu événement la événement wu sénégalais la événement wu patriote la événement wu képp kuy sénégalais la est que yaa ngi comprendre. ay sénégalais la ñun dañ ñëpp affaire bi Dakar Arena la. mais temps yii nii moo Doro Gueye moo gën a moo gën a def. ah Doro Gueye la yemal yemal Gomis. Ah, looy laaj rek laaj ñu ko moom boo koy laaj laaj ko ci woy non non boo koy laaj laaj ko ci woy laaj ko ci musique leneen looy laaj ko. tey tey Djibi Ndiaye moo ñu fendi tey. ginnaaw bu ñu sant yàlla ginnaaw bu ma sant yàlla julli ci yonent bi sant sama ñaari waajur maa ngi sant ñu jàppale ci combat bi yëpp ba ma tëjee place bu mel nii tey donc yéen ñëpp ngeen mën a ñëw sama inauguration place muy levissement London Shop donc di wax kontaan naa xam nga gis naa fi samay xarit gis naa fi ñëpp donc nit nii nga tëj sa place

ñun tamit dañuy ñëw fësal suñu colère ci mom waye aussi fësal suñu colère pour won ko niko ni nga bëggé mom ñu ñi and ak mom niko raw lañ la donc mu nekk place bu yañ bi di nekk place watu kay di wax sénégalais yëpp képp ku bëgg wat bu rafet wat bo xamanteni ni da nga ko doon gis ci internet muy Londres ak muy États-Unis bo ñëwé ci Levi's Man London barba di nga koy fekk ñu ngi nekk juste après rond point Ngor bi da ngay melni koy dugg ci biir Ngor rek premier koñ à droite nga jadd 28 décembre mooy événement bu mag événement boo xamante Sénégal ñëpp moom la ñuy xaar muy Dakar Arena donc comme moom woote Dakar Arena Birame Ndéer Bour kàcce koor dëggeen muy Momo Dieng di l'artiste du moment di doomu sénégalais yóbbu musique Sénégal un peu partout dans le monde donc moom moo woote le 28 fële ca Dakar Arena di woo sénégalais yëpp événement bu réussir réussite waa Sénégal la donc di wax waa Sénégal na ci ñëpp jàpp waa dakaar waa Bargny waa ñaajo waa Sébikotane waa Rufisque ñëpp ku lim juum na ci sénégalais ñëpp génn le 28 décembre. ñu jël direction dem dakaar Arena feesal ko def ambiance ak le centre du peuple ñu gën koo xam ci biram ndeera buur kàcci kor dégéen muy Momo donc voilà yaa ma gën a xam e tegal Momo Dieng bi tegal bii nii oh Momo boobu na boobu bii waaw baax na aco waaw loolu loolu moom je pense que vie privée wu jàmbur moom comme sénégalais yu bëri ci loolu lañ ma xamé quoi je suis pas quelqu'un qui m'intéresse à la vie privée des gens parce que man tamit am naa sama bos mais li ma mën a wax rek mooy ñaari nit moom bu ñu sekkee dara ñoom ñaar nit mën nañ ci waxtaan ba trouver ay solution loolu Papa xaw ma ko mais léegi laa xam même léegi sax nii laa xam ne on on n'a pas de relation yoo xamante ne mooy relation amicale ba ma war cee prononcé parce que mën naa ci wax juum te nit moom ñaari nit ñu sekk ci benn affaire boo ci waxee rek da ngay juum te bëgguma juum donc di wax ni que ñoom ñaar ci jàmm lañ leen xamee bu fekkee aussi dafa am lu nekk seen diggante waaw. mais xam nga rek man moom wax dëgg fa yàlla comme ni ma waxee Sina bi rek Racky c'est ma sœur sama xarit la on a on a travaillé ensemble si pas mal de projets sur pas mal de choses donc mu doon ku baax mu doon koo xamante ni ku am yëg la ku respect comme ni comme moom ni nga koy waxee rek parfois àdduna loo xaar rek dala fay fekk donc je pense que li am tey jii du sens mérite la et que di ko ñaanal ci li mu nekk nii yàlla na ko ci yàlla jàppale mu am ci ay njaboot bu barkeel. donc après tout ce qui extra man voilà man raki laa xam fu raki nee fa nekk ku raki àndal ka laa àndal non du féetee sax man raki sama sama sœur la donc sa sœur bu nekk ci benn affaire donc soutenir comme li ma la wax rek je pense que patience la quoi tu vois a il a, il temps et précipité xaar le moment opportun pour def lu muy def wax lu muy wax donc man leen rek laa ko mën ñaanal ko ci li mu nekk ni yàlla na sëy bi barkel quoi voilà leneen lu xew nag ci biti loolu xam rek ay ay njàmbaas la ay. Doro non mais Doro mënu ma ko wax dara parce que am moo relation ak moom mais li ma mën a wax rek daal mooy ci néegu sëy la nekk nga xam ni ci néegu sëy la nekk et que mu toog mu xam ni benn sëy neexul donc nit ñi lu nit ñi di wax ak lu nit ñi di jëf yëpp mu gëmm a toog lu gérer lu muy gérer yàlla dimbalu ko ci mu am ci njaboot bu barkeel quoi c'est plus important. non TikTok léegi benn TikTok dafa doon benn réseau boo xamante ñëpp ciy daje. et que fu ñëpp daje léegi ku nekk day jéem a wax pour attirer nit yi pour faire plaisir quoi te comme ni ma ko doon waxee rek à force de vouloir te le faire plaisir yow da ngay gaañ sa bopp donc na nit ñi di maandu ci mbiru nit ñi ci vie privée jàmbur yi parce que ñaari nit yu tëju ci néeg xamante seen biir donc pour man li nga ci war a def rek fekke woo tinoo mooy nga maandu ci donc nañu maandu ci vie privée jàmbur te Sénégal dëkku teraanga la dëkku jàmm gis nga lii nu mu rafetee ñun ñëpp ñu ngi fii di foo di ree xam mu ngi fii Abou Malick Maam Khadim xam nga ñun ñëpp ñu ngi fii di foo di ree donc lii lañ xam mooy teraanga sénégalaise na gaa yi sekk jàmm waaye lu mënti am rek bu leen fàtte naan ak lu mu mënti xewee bu leen fàtte di naan dee leen naan loolu mënti def di topp di topp Medina TV ak siiwal ko waaye dee leen déglu Momo Dieng. Maam Khadim nuyu ngi leen di fay. yaa ngi pare nañ. buñ doon waaj ba léegi ñu loolu jeex na pare nañ pare. le 22 pare arena lañ jëm. ah loolu ñun. loolu ñun ragal ñun ragal tëggoon ba pare euh, euh, deuxième fois bi mooy mu xam nga wax naa la ko. je te le répète. arena ay xar demuñu fa ay bëy demuñu fa ay nit dafay dem. te mu moo jeex nit la. te bu fa demee da nga xam ne moom moo war a dem arena ndax këram la.

vingt mille personnes yi mu wax dama ci tégal yenen 5000 muy 25000 cinq mille ma tegalaatal ci yenen 2000 muy 27000 sept mille yokku 1000 mille muy 28000 mu mengok le 28 décembre ño mën wala mëna ñu bo bo mais temps yi coow na lool ci rek ay dara ak Doro gay te yow xamna sa sa fu nga féetee nit ku dul jum nit ku dul jum amul Lewis den bo fi ñëwee wootu lool la ci xam xaadim mais xaadim Karara Momo lu parce que Momo moom la ko war a moom la Momo moom doomu ndey Karara la. waaw moom doomu ndey ñëpp la Momo Momo Sénégal la Momo Momo Doro Gueye la Momo Momo Jibi Ndiaye la ki tax sax ñu ñëw fii tey mu ubbi Levi Levi London Barbe est que yaa ngi comprendre di affaire bu am classe du yëfu xale nag yëfu mag la est que yaa fii moom ku fi ñëw. bu buñ la watee nga xam ne ay watkat dëgg wat nañ la. kaay kaay ma yokkal mais mais mais mais mais Racky gëj nga kaa dégg. bu ma dugal foofu <laughs> dimbal ma ngir yàlla. ka kaay yokkal la. te fii xale yi neex nañ na lu loolu laa bëggoon wax ma ne gis nga fii nee nañ boo watoo da dem sa kër di tooyal muy gën di sëkk comme tool fi laa watoo. damay tooyal def yu wàcc. sama karaw xoolal xoolal fii la tolloon fii lii kese la woon démb laa watu tey ma am lii maa mën. yaay ba. mais delloo siyaar sama waa ji. lépp jàmm na est que alhamdulilah. invité xam nga. mi baax. te dañu invité si ouverture bi nekk salon de coiffure bu mag yaa ma gën a xam. te li ma gën a neex mooy fii maanaam du watu ko quoi. da ngay mën a toog ci da ngay nekk sa jàmm ba pare dangay ngay watu fii dégg naa ne ku watu say buntu wursak day gën a ubbeeku maanaam tey boo doon am 100000 par jour boo ñëwee woto boo ñibbee dinañ la fay commencé fay 200000 par jour ah non yomb na yàlla fii lu waaye am woto waaw lu waaye am woto non woto yomb na waa métteetu léegi fu mu toll nii ci réew mi ak fii rek ñun fii la ñuy woto ak suñu waa ASC yàlla jàmm yàgg Donc <laughs> bonsoir tout le monde, c'est Aïda Sissé, je responsable chez Lewis London Barber. Donc, euh, comme vous voyez, c'est un nouveau salon de coiffure pour hommes qui vient d'ouvrir et nous proposons différentes prestations. Euh, on fait aussi de la pédicure pour, et des soins du visage bientôt. Euh, en tout cas, ici c'est un cadre convivial où tout le monde peut s'y plaire. c'est le luxe à petit prix en tout cas. Nos tarifs c'est à partir de 5000 francs. À partir de 5000 francs, de belli.